asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ziar naa dañ may faral di fàtte waaye ci prisonnier politique yi laa bokk te dama représenté mouvement boobu ñuy wooye Cobra collectif des bracelards nous sommes plus de 340 na mën na ci yàlla jox tur waaye li ma bëggoon tàmbalee mooy ginnaaw bi ma sargalee massawu collectif des familles des détenus politiques dama bëggoon a sargal jaajëfal defal standing ovation plateforme chemin de la libération ma jaaree ko ci soxna soosu ñuy wax Fatima Mbeng ñooñu dañu mérité ñu rendre leen hommage parce que détenu yi bu seen nekkin amee nu mu mel ci prisonniers yi c'est parce que ñoom nelawaluñu yëngaluñu su ma tuddee Fatima nag damay tudd mboolem ñi ci nekk nga xam ne waa JPSN ak waa FRAPP di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi li ma bëggoon a wax dafa simple yaakaar naa ne président Ousmane Sonko wàccoon ak détenu yi ndax bi tànn candidat jotee daf ne El Malick xamuloo dara toogeel na Birame Souleye njàccaar nga waaye nag am na keneen ku may jël prisonnier politique yi laa bëgg a rendre hommage donc Bassirou Diomaye Faye lay def candidat kooku yaakaar naa ne wàccoon ak yéen bi ci topp mooy su ko neexoon tey mu fekkee lii te li wax nag lu leer la waaye balaa muy génn ñëpp dinañ de kooku moo gore nag kooku moo gore balaa muy génn ñëpp dinañ génn leneen li ci des mbokk yi dama leen di ñaan ngeen focus ci combat bi bu leen dara ñor lu dul président Ousmane Sonko ak suñu candidat Bassirou Diomaye Faye xam ngeen lu tax saytaane yi ñu ngi jéem a ruube ñu ngi jéem a jaxase di yónni seen ay chroniqueur ak yu ni mel dama bëgg ngeen xam ne président Sonko ak Bassirou Diomaye Faye réeroo wu ñu mësuñu réeroo beneen bi ma bëggoon mu leer mooy lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci stratégie ba yàlla def mboolem li nga xam ne jéem nañ ko ngir ñi bañ am candidat ñu teggi ko ba am candidat noonu la ñuy wéyalee stratégie ba bu élection amee ñu mën a fexe ba projet Pastef daal di mën a jël ndam li ndax loolu mooy li am solo donc restez focus bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi génn di wax mais gisoo leen ñu teew fii parce que c'est toujours Pastef qui a payé le prix lourd du tribut Pastef la ñuy rey Pastef la ñuy jàpp Pastef la ñuy blessé Pastef la ñuy def lépp bu Pastef wootee pour détenu yi bu famille détenu yi wootee candidat yi ku ne dem toog sa roq loolu mooy dëkk li ñu firndeel nag mooy bu leen ñàkk fayda focus leen ci seen candidat focus leen ci projet bi bu leen perdre benn temps parce que nag ci firnde yu wóor yoo xam ne pronostic moo ko joxe mooy bu ñu demee élection Bassirou Diomaye Faye dina am minimum 54 pour cent dès le premier tour leneen li ci topp nag mooy président Ousmane Sonko moom yàlla da koo ndax ñoom ñoo waxoon ni waaw ñu jàpp ko ngir réew mi am jàmm walbatiku ne faaw ñu bàyyi ko ngir réew mi am jàmm loolu yaakaar naa ne man na sëkk jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Elmar. jërëjëf. jox kàddu gi maanaam si Sane. pare jox seen baara bu ñoom Grand Dakar du trahir. waaw ban sëñ Paul. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi leen di nuyu yéen yëpp kenn ko nekk ci turam ak santam di nuyu ñi ci biir réew mi waaye di nuyu ñi ci bitim réew di jéggalwaat bu baax a baax a baax ndax xam nañ ne jot amul mais lu mënta ñàkk faw dafay am euh, jotaayu tey bii nag man jàpp naa ne sax sama wax mënu cee bari te waru cee bari ndax mboolem ñi ma uutu lii ñu fi wax mënu ma ko dépassé xanaa ma dellusiwaat ci lenn rek mooy que ne ñun jaboot moo ñu yëkkati jaboot moo ñu tax a jóg ñuy ay papa di ay yaay comme ni ñu leen ko waxee ci discours bi en français ñu wax leen ni ñun dañoo jàpp suñu doom umpul kenn waaye mu mel ni dañoo wéet li ñu wéetee mooy ay kilifa la ñu amoon yaakaar leen muy diine ak aada ak cosaan waaye dafa mel ni dañoo bàyyi suñu bopp ñuy sant yàlla subhanahu wa taala bi nga xamante ni yàlla moom mu ngi wéttali saa su ne ci biir loolu moo waral jotaay bii ngeen gis nii tey ndax mboolem ñii fi toog ay kilifa ñoo fi toog seen taxawaay fii ñu di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci biir loolu Macky Sall li la ñëpp wax laa lay wax bàyyi suñu doom yi euh, à travers image yu kii ma yor muy Macky Sall ñaam mii di ndaw di jigéen di responsable yor njaboot di liggéey ci réew mi di teral ay njabootam ñi nga tëj ci kaso bi yëpp Alioune ak Macky Sall Macky Sall ñaar ngi lay wax nga bàyyi leen ñu ñibbi seen i kër bi ci topp mooy monsieur le président de la république je pense que une fois mu soog a ñu wax ne méfiez-vous d'un lion qui dort moi je pense qu'il est temps que le lion se réveille qu'il se réveille du bon côté qu'il ne mal au point parce que la situation du pays est carabinée malheureusement à vous monsieur le président de la Moi, je pense que au moment de votre réveil, vous avez trouvé au crépuscule de la fin de votre règne. Et sur ce, monsieur le président de la République, bu fekkee dëgg la jàmm nga ñu président respecté li nga xamante ne constitution moom la la may réew mi ci jàmm la xet monsieur le président organisez les élections dans les meilleurs délais faut pas saper le moral des Sénégalais les meilleurs délais ne sortent pas du 3 avril fin de votre mandat donc lépp loo war a a def au nom de votre magistère ça s'arrête le 3 avril incha rabbi kon bu ñu waxee meilleur délai faut pas que ngeen ñu propulsé dañu naan meilleur délai c'est à l'infini c'est indéfini non c'est pas vrai meilleur délai monsieur le président je encore une fois que les meilleurs délais c'est pendant votre règne et votre règne va s'achever incha allah le 3 avril monsieur le président de la république Si par exemple le ministre de la Justice nous sert qu'il n'y a pas de, il y a, il a, il a pas de, de, de Sénégal ou bien il a pas de cas torture, je suis désolée. xanaa yéen nekku Sénégal ou beneen Sénégal ngeen ne partout dans les réseaux sociaux même xale yi sax léegi dañ koy fooye des cas de torture yoo xamante dañuy torturer suñu doom yi dañ koy wax dañ leen di torturer di leen gaañ balaa ñu leen a yóbbu ci kaso dañ leen di buñ duggee ci kaso dañ leen di bés bu yàlla les détenus on va tous voter la coalition Diomaye 2024 pour obtenir la liberté de nos enfants. Merci. jërëjëf xam naa dama jox euh, le président Cheikh Tidiane Dièye boo defee